Grand Dakar di nga ma tabb ñaar man seen ministre ma tabb def ma ci liste Dakar tabb la maire de la commune def ko ci liste Grand Dakar wax na nag kuy wàllu en sa kër moo tëggul li ñu am as ñëw ci Grand Dakar dëkk bu ne la koy ñëw ma fay ñàkk ku ma dooleel dooleloo dooleloo Macky Sall waa Grand Dakar ba dooleel ku ma jàppale jàppale woo Macky Sall waa Grand Dakar nga jàppale man dama ne nag. tubaab nañu fàttaliku jëf yi ak ak ak ak defeeru yi nañu fàttaliku li nga xam ne Grand Dakar bi mu duggee ba léegi loolu laa fi def te ma ko mënee président moo ma demoon ko nag teg ma ci poste boo xam ne ma am ci nag cër am solo mu dénkam askan wi ndax bu nee jigéen wax ndaw wax góor wax jigéen wax famille defe naa askan yooyu mu dénk ma ngi def sama kenn bi laay kàttan nag li ma mën ak moom ma laaj nag waa Grand Dakar baat tàllal sama loxo nag président am majorité assemblée nationale foofu la ñu jëm te président bi am majorité assemblée nationale réew la moo nekk enjeu réew la ñu la ñu liggéeyal pour mu eggal li nga xam ne outil yëpp kenn fu ñu doogul président l'homme au projet l'homme au projet sociaux du Sénégal kenn koo xam ne Sénégal ak foofu na ci rek président fi nga defal dara kon nit ñi nañu yeewu ñu woote wuñ ci xuloo woote wuñ ci ci li la ñu de de contrat 50 contrat tey ci Grand Dakar jox ko ay jeunes 50 ci loxo yu ndaw yi su wet dina gis 50 jeunes seront aujourd'hui enrôlés dans le programme Jeunes Ndaw yi fii ngeen taxaw contrat yaa ngi nii ngeen di gis foofu contrat yaa ngi nii 50 jeunes tey dinañ am liggéey fii ci Grand Dakar ci loolu la ñuy wax ñëwee nga xam ne kenn du président wax dëgg yàlla bari rek coow li ku ne di tëgg ay Sénégal li ñu soxla mooy ku leen dimbalee loolu la jeunesse soxla tey bu ñu génnee tey bokk 50 jeunes boo demee nga jàppale sa ndey jàppale sa baay président 450 milliards def programme xëyu ndaw yi loolu mooy phase bi mujj waaye am na benn phase 30 yoo xam ne tey jii lu ngeen ne ci programme xëyu ndaw fii ci Grand Dakar bokkul nag li ma amoon jàpp ko njëkk le président moo ko def ñu fas cinquante jeunes yoo cent cinquante jeunes yoo xam ne ñu am permis de conduire ak pas c'est cela la question loolu defal ni ñu la laaj di nga def dañuy exactement loo indi te suñu sont pas des slogans dama koy génne fii léegi ñëpp gis ko ñu wax ay financement defe naa fii jeunes yi bi ñu yàggee financé ak la guerre madame monsieur le représentant madame la représentante de la DER ñaan nañu marché Grand Dakar nañu waxee lii te war naa am nag marché Grand Dakar euh, la dit la boo la disposition des a yeewu a la xaalis nga liggéey léegi am sa bénéficiaire delloo loolu présenté fi réew mi man la direct soxna ma ko dina dina nan ni fii au niveau du marché Grand Dakar pour ñu fa jaay am ci loo xam ne dañu ma a liggéey pour génn ci di taaw ñoo xam ne mooy usiniers yi kon ñu ngi sant la gërëm bu baax di ñu félicité ba ci démb defe naa fii ci opération tabaski bi vingt jeunes ont été enrôlés ku nekk am un million de francs CFA lool lañ def ci Grand Dakar ëllëg amaat beneen projet boo xam ne cent millions de francs pour les jeunes filles parce que ne bloc ak quatre-vingt mille francs yi waaye incha allah fas yéene jox naa la ku nekk sa loxo dina fekk jox la ak tabaski nag dimbale dafa nekk bu nekk Grand Dakar xam kenn laay kattan pour mu yaatu si Grand région au niveau national dañ jàppale bi liggéey bi ci. defe a coow lu bari bari yëpp tamit suñu bëgg président def te nag Grand Dakar engagement bi laa bëgg ngeen ko renforcer. bi jeunesse bi vous li fi am lépp yéen boo xam ne def fi nekk rek ak mën a mën ak foo mën a bokk rek li président def yaa ko moom demal nga jëli ko le pôle emploi mi ngi ko fii dañuy fi xam ne moo la xam naa su ma ko may yàlla dama madame la ministre sant baax di la gërëm